ci yenn kaay yi El Hadji Ndiaye repérage Ousseynou jàmm ci xibaar yéen kaay yi nga xam ne nag moom la xëyandoo jamono ji ne colonel Kébé moo koy sooy waaw mi ngi ci guddi gu bët setagul yéen kaay bi di enquête du ñu xamal ne daal moom la koy toppee ay kàddu bi di Sud Quotidien du ñu xamal ne ak lu mën di xew kay gannaaw colonel moomee ñii nga xam ne daal ñoo ànd ak Idrissa Seck jamono ji daal bu yeboo ñu tari sóoratu muñ di ñu xamal ne am na lu toll ci juróom-ñeenti nit yoo xam ne jamono ji teg nañ leen loxo wa ñu daal moom la ñu doon amal ci yi coalition Benno Bokk Yaakaar ndax danañu am meneen mbër wala sax danañu nangu keneen ku leen jiite ndax Macky Sall ak ko dese ci réewum Sénégal yéene bi ñu xamal ne loolee daal ak lu mën a xew jamono ji dana andi ay jafe-jafe di ñu xamal ne gannaaw loolee jamono ji nag la ñuy laaj moo di patron bu Dakar la ñuy laajte kan lay doon ndax Amadou Ba lay doon wala Abdoulaye Diouf Sarr yéene kaay bi di ñu xamal ne ak lu mën di xew mën nga caa xam ne nag moo di Moustapha Cissé Lo borom fetal gi ndaxte nag Moustapha Cissé Lo mii nga xam ne daal mi ngi doon milité fi nga xam ne nag moo di ci dëkk bu sell bii di Touba jamono ji nag dafa dem fi nga xam ne nag daanaka moo di ndakaaru waaw fa seenu fa wéyale yéen i kaay bi di direct info di ñu xamal ne kay ndax Moustapha Cissé Lo moomee ndax danañu ko may mu eggale ak mboo xam yéen i kaay bi di ñu xamal ne notable yi xam ne nag ñoo nekkee ca Yoff waaw damono ji dañoo lànk ne Abdoulaye Diouf Sarr ko moom a mu daal di dem xam ne gunge na ci daanaka ndam la ci jëlee waaw 2012 ba léegi daal bépp élection boo xam ne daal gunge na ci njiitu réew mi kookee daal mooy Abdoulaye bu dee Moustapha Cissé Lo dafa yaakaar dara bu yeboo mu toogi ndax ñi nga xam ne naka moo di yokk ci réewum nekk avocat ci barreau bu Canada moom nag mu daal jàngat lépp loo xam ne naka jëm na ci élection yi nga xam ne daal moom la ñu nekkoon Pape di ñu xamal ne kay Macky Sall dafa tiit waaw dafa tiit dëgg de moom Macky Sall dafa jàpp ne nag ñi nga xam ne daal ñoo nekkee ci ku jëg Sénégal am na lu bëri loo xam ne ña ngi koy waajal waaye nag lii nga xam ne daal moom la nekkee muy jàpp nit ñee ko xoxatal bu yeboo nag mu daat cay teggi tànk bu leen teggi seen tànk ba ne jàppaate moo amoon ci bi di Libé di ñu xamal ne kay jàppaate googee tey laa leen di leeral mbir ñoo xam ne jàppoon nañ leen dafa am ci ñenn ñoo xam ne daal waaw ci ab groupe WhatsApp daal ci la ñu tàmbale woon daal di dugal ay vocal daal di xam ne nag élection yi daal bu fekkee ne nag jaay doole gi daal dañu ko nar a jàlle nañu dem lakk station bii nga xam ne daal moo nekkee ci ndaam bu ñu ca paree jàll ba nekk ca rond-point ba taal ko ba mu tàkk jëppe bu ñu ci yem Senelec nga xam ne moo moo nekkee a teg loxo ci dëkk bu sell bii di na ci li nga xam ne nag moom lañu leen di toppee a yéenekaay bi duñu xamal ndam lii nga xam ne daal Macky Sall am na ko ci Sénégal waaw maanaam jëlaat réewum Sénégal gi nga xam ne nag moo di sëriñ Cheikh Abdou Bali Mbacke Gaynde Faat moom sëñ bi Mbacke nag ci mitin bi nga xam ne nag moom la doon amal waaw gannaaw ba mu gërëmee ñi nga xam ne daal ñoom waaw daanaka ñoom ñoo jàppale ki nga xam ne nag moo di Idrissa Seck ndaamal Kajoor loolee tax na daal ndam lii nga xam ne am na ko ci Touba waaw du lenn loolee jamono ji nag combat Samba dafay wéy nañu wéy ba ci l'observateur yéeni bi di ñu xamal ne kay ki nga xam ne nag moo di Ahmadou Sey xale bi nga xam ne daal dañoo fekkoon ñu faat ko waaw dugal ko ci saako fi nga xam ne nag moo di Malika jamono ji nag yaayam jamono ji naqar ak tiis gu metti lay dund ci doomam joojee nga xam ne dañu koo faat ci anam yu ñaaw